okay. la situation de la coalition Benno Bokk Yaakaar ça se comprend mm. ça se comprend parce que euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ba ñuy wax dañ ne woon c'était une coalition électorale hmm. élection jeex na élection amatul ils ont perdu le pouvoir fi mu ne nii je pense que sauf qui peut la nar a doon mais <laughs> sauf qui peut les partis prendre les responsabilités dem réorganiser waat pour mën a taxaw hmm. mais fi difficulté bi nar a am mooy qu'en est-il de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans l'Assemblée nationale du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar parce que est-ce que le comportement de la coalition du toucher directement au groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. n'est-ce pas est-ce que fissure est-ce que fissure yi commencé wul am au sein de la coalition est-ce que cette coalition ce, ce groupe parlementaire va rester intact comme ni mu meloon dans le temps mm-hmm. parce que soo déggee soo déggee yëngu-yëngu am le PS s'organise l'AFP communiqué bi mu def te te remercié wul le président de la République Macky Sall ça veut dire que le torchon brûle entre les partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar est-ce que du feeñ au niveau de la coalition de de du groupe, parlementaire mm-hmm. bon si laay jaaree sax profiter saluer ma la présence de mon jeune frère Mbaye Sène peut-être moom dinañ ci apport dinañu dinañu ci apporter ay réponses yu leer par rapport à cette situation parce que for nañ ci yooyu béy nii député yi au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi commencé di ñenn ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi génn ci ci ci ci ci groupe parlementaire boobu. waaw bu ñu génnee ñu def. dañuy dem nekk ay député non alignés non alignés n'est-ce pas donc foofu mooy li nga xam ne buggoon naa ko wax ci ci ci ci mbirum euh, coalition Benno Bokk Yaakaar. ok donc euh, par rapport à la revue de presse aussi.